bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina rahmatika yaa arhamar raahimiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw ñu sante suñu borom subhaanahu wa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 ndax ay gàllankoor rek moo ko waraloon waaye lépp aw yiw la ñoo ngi leen ciy jéggalu bu baax ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu jéggal waaye ñaan ko itam mu barkeelal ñu suñu dund ñoo ngi koy sant bu baax ci mboolem xéewal yi nga xam ne mi ngi koy xéewale jaam ñi tudde boppam wahaabu te mooy mayekat bi waaye tudde boppam borom yërmandi ji yal na ñu boole ci ñi nga xam ne danañ bi ci biir yërmandeem donte léeg-léeg muy lu dal ci doomu aadama mu jàpp ne mettit la waaye fekk daa gën ñoo ngi nuyu soppeek am di jàmm yëpp ñu ci tawat yal na yàlla saafara leen suñu jigéen soxna madame Dieng ci ñooña la bokk ñoom soxna Aram Silla ñoo ngi leen di nuyu di nuyu docteur Ana Dia ak mboolem soppeek waa mos baax yëpp maa ngi leen di nuyu kulim juum mu mel ne waxtaan rek ak fàttalente niñ ko baaxoo defee rawatina bis boo xamante ne bisu àjjuma la nga xam ne daan nañ ñëw léeg-léeg dellu si waat ci wàllu jaamu yàlla yi nga xam ne moo ci aju mu mel ne jàngoon naa aaya joo xam ne bari na lool lu ñuy dégg ñu di ko tudd borom bi subhaanahu wa wax ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mu mel ne ku naan binduma nit ak dara tax ma bind leen lu dut ñu jaamu ma nga xam ne ñu jaamu ma rek laa leen di doye doyewu ma leen leneen su fekkonte ne jaam bi day laaj boroomam subhaanahu wa taala naan ko loo may doye yàlla danaan li ma lay doye mooy nga déggal ma mooy ngeen bàyyi ma xel mooy ngen doon ñoo xam ne ay jaami yàlla ngeen maa uridu minkum min rizqin wa uridu an yut'imuun inna allaha huwa rasaaqu sul quwwatil matin jaamu googu te mooy déggal borom bi subhaanahu wa taala mooy li nga xam ne ci lañ nekkoon ci weer yi ñu génn yépp benn ponk ci ponki lislaam yi muy weeru koor koor gi nag moo jeex waaye jaamu yàlla jeexut moo tax ma waxoon la ne ci wàllu jaamu googu borom bi subhaanahu wa taala wax ne dama bëgg ngeen di ko def looloo tax ma ma di leen ko fàttali ak di yónni ñoo xam ne dañuy yittewoo loolu dañuy yittewoo woo nit ñi ci ñu jaamu seen borom subhanahu wa taala ak wéetal ko muy al anbiya wal mursalin alayhim salaatu wasalaam nga xam ne suñ borom moo leen sant ne leen dee leen digle lu baax tey tere lu bon waaye jaarale ko nag ci yoonu wax yu ni ma ko waxe woon ni wax ne maa leen ko déey maa wax loolu wala xad baatna fi kulli ummatin rasula an yabudullaha wajtanibu taaxut fa minhum man hada allahu wa minhum man xaqat alayhi dalaala fasiiru fi l ardi fanzuru kayfa kaan aqibatu lmukathibin borom bi subhanahu wa taala nee na bu ne xeet wu ne maa yónni ci ñoom ndaw maa yónni ci ñoom ambassadeur ndaw maa yónni ci ñoom ab yonent waaye la ko tax a ñëw rek mooy ñu jaamu yàlla te moytandiku leneen lu ak jamu yàlla loolu waxoon naa ci lu yaatoo yaatu ci wàllu wéetal borom bi subxanahu wa taala ak moytandiku li nga xam ne mooy bokkaale dellu ci yàlla waaye bañ a complexe ba woon jàngaleem borom bi subxanahu wa taala ginnaaw. baat bi léeg-léeg dañ koy wax baatu complexe boobu nga xam ne mooy tolloog ak yaras leleg mu dal nit ki te ki du ko yëg léeg-léeg mu dal nit ki te ko du ko yëg yal nañ ci yàlla musal waaye ñàkk xam sa bopp da koy waral moo tax doomu aadama bi buñ koy yar ñu di ko xamal moom mooy kan ndax loolu da koy dimbali koy dimbali bu baax a baax a baax a baax ci yu baree baree bari yoo xamante ne dafa nekk ci kanamam dafa nekk ci kanamam ndax doye di baaxut te suñ borom subxanahu wa taala bëggul ko doye di bëggul ko doye di moo tax jaar-jaar yi nit di jaar ci ay métit yoo xamante ne daa waroon a lemu loosam jàpp ne dañ damaa dund lu metti balaa borom bee kontaan ci moom mu gis ko mu mel ne koo xam ne loolu da koo jël moom oyofal ko mu mel ne koo xam ne daa jël loolu oyofal ko léeg-léeg mu jàppee ne nattu la léeg-léeg mu jàpp ne lu fi waroon jaar la wala mu jàpp ne ka ko def moo am jikko yooya waaye man awma jikko yooya kon man du man loola laa koy faye damay doon ki ma doon waaye du yàq sama programme bu loolu amee rek borom bi subxanahu wa taala kontaan moo tax mu bëgg jàmbaar moo tax muy tege ay nattu moo tax muy tege ay nattu wala nablu wannakum loolu dégg ngeen ko danaa leen nattu danaa leen nattu danaa leen teg ay. yëf yëfaan yoo xam ne da leen di gaar yàlla xam na ne li la ngay dox ci penc mi ba mu yàgg nga waxtaan ak nit mu nettali la ci dundam yu metti yum dund yoo xamante ne nii da ngay yéemu ci yàlla maanaam léeg-léeg mu jaaxal la sax nan la nit mën a yenoo poids bi sax ba noppi continuer di dund waaye nga yëg ne àdduna bindoo noonu àdduna dafa doy waar léeg mu dooni wor léeg-léeg mu dooni wor koo xamante ne nii te wor wax ku baax ku may bañ a tudd turam ci jotaay bi ndax ni ko mbir mi jege ne ko léeg am na wor yoo xam ne li koy tax a metti mooy ki lay wor da lay jege xam nga nit ki léeg bala mu laa mën a nax day fekk nga wóolu ko ba noppi léeg nit ki bala mu laa mën a wor day fekk nga wóolu ko ba noppi ndax ki nga wóoluwut dëgg-dëgg ngir mo wor la day jafe am na koo xam ne buy li niñ ko def li ñuy wax ci penc bi naan daf maa dóor maanaam daf ma teg diil ñi ne dafa lekk sama xaalis wala nangam day mel ne dañ naan yii waa ji muus moom lim la def waaye fekk na dug muus jamono ji loolu di am day fekk ni nit ki da nga koo bàyyee sa bopp day mel ne da nga wóolu ba yëkkati say loxo bàyyee ko saw yaram lépp bàyyee ko sa bopp ci fànn gu ne nga din law ku mel noonu nag bu lay wor day metti moo tax borom bi subxanahu wa taala ne workat yi bu ma leen jàppee duma leen inna allaha laa yahdi kaydal qaa'iniin yàlla nee na du jubal mukk pexem workat yi waaw du ma jubal mukk pexem workat yi moo tax workat bi war a jàpp ne réussir na réussir day door a tàmbalee dugg ci toroxtaange day door a tàmbalee dugg ci toroxtaange yow miñ ko teg nag muy lu metti li ci am solo mooy ci lu ba nga xam ne loolu yàqu dara ci moom ba mu mën a toogaat nag tiimaat àdduna nga xam ne bu ko tiimee àdduna moom beneen bët la koy xoole àdduna day soof ci moom te loola yàlla bëgg bu sañoon àdduna day soof ci ñun àdduna day ñàkk solo ci moom dootu ko jaral dara waaye nag da koy yokk jom ndax bu fekkee koo xamante ne dalaa war ci alal la da nga góorgóorlu ba du la du la du la yërëm ci àdduna ndax kon jaar-jaar boobu yokk na la jom bu dee ko xam ne daf laa war ci ay wax la wala ay jëf da nga góorgóorlu ba du la gis mukk wala mu dégg la mukk ci lum naan ñaw wala foogoon naa ko wala lii laa leen doon wax moo tax mag ñi buñ daan yedd seen njaboot dañ ko daan yedd te duñ ko wutali noon xam nga ñun dañuy léeg-léeg nga yar nit di ko di ko di ko wujjaloo doo ko tey ñoom buñ la daan wax naan la nangam koo def xanaa gisoo diw xanaa gisoo diw waxuñ la ne wujjeel ak diw waaye dañ lay won rek yoon wi mu jaaroon ndax bëgg nga jaar fa waaw ñun nag bu ñu fàttee loolu boo muy tuut Euh, dañ lay wutal ay wujju ak i noonu moo tax ngay dem ci ab famille fekk nit am ca teraanga bari lool ñoo xam ne bëgguñ koo gisee ci bët ca biir famille ba waaw moom lu metti lay dund bu dimbulee ñu xas ko bu dimbulee wut ñu xas ko bu dimbulee ñu ne day wonew bu amee ngantul dimbulee ñu ne du dimbuli kenn sàmba àllaar la ma ne loolu coono bu ñu dund ci pénc waaye déggal yàlla rek a tax borom bi subxanahu wa taala di bëgg ci jaam bi te mooy nangoo delloowaat lépp ci moom yëg ne yàllaa ngi fi ba noppi am na geneen dund goo xam ne mi ngi suñ kanam te mooy dundug euh, yowmal xiyaam nga xam ne dinañ exposé workat yi seen wor yi ak seen jëf yu ñaaw yi waaye ñi ñu doon wor ñoom itam danañ taxaw ci kanam seen borom subxanahu wa taala kon bul wor nit bul wor sa borom bul wor sa bopp ak kéefar dëgg mooy wor yàlla ndax fi mu jaar yow. ak xéewal yim la defal yépp nga man ko woon ginnaaw léeg-léeg di dàq lu ko jërut ba woon yàlla ne ko fàtte naa la man awma sa jot xaar ma moo tax julli gi moom muñal ma ko wala koor gi muñal ma ko la nga yëkkati ay baat jëmale ko ci moom desal ginnaaw am njàngaleem ak ki joxoñam dangaa wor sa borom subhanahu wa taala te wor nga sa bopp ndax danga ko war a teral ndax yàlla teral na la ba def la ngay nit kon teralal sa bopp ba teg sa bopp ci sées bi waaye bul war sa bopp ba bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di diri ci suuf su ma radadnaahu asfala saafiliin loolu baaxut waxoon naa la ne jaamu borom bi subhaanahu wa taala moom la yàlla sant nit ak bañ koo bokkaale kenn yonent yi mu doon yónni loolu lañ doon woote mooy ani abudullaha wajtani bu taaxuut jaamu leen yàlla te moytandiku bokkaale te moytandiku jaamu leneen lu dul yàlla moo tax mu tudde ko a taaxut rek yow yaa xam yow lan mooy sa taaxut lan mooy sa pas-pas sa xërëm yi mën naa am alal la dégg naa nitu yàlla ka waxoon na waa dëkk ba ni leen hee ñëpp xowal ko wuyu ko mu ne leen yàlla ji ngeen di jaamu de mi ngi ci seen mi ngi ci sama ron tànk yi ma taxaw ñu ne ko yow da nga ñoo yab nooy taxawee ci kaw yàlla di ko jabolise ba ko bañ toogee ab diir xool foofee ñu doon xool ndekete foofa jamaa fa nekk ak or ñu ne yee moom day ndekete dañoo bëggoon a wax nañu ñun or ak jamaa maanaam xaalis rek la ñuy jaamu xaalis rek la ñuy yow xoolal ba xam ndax nit moo gën a xam boppam moo tax borom bi subxanahu wa taala bëgg ñu jaamu ko waaye bëgg ñu jaarale ko ci fiñ ko war a jaarale moom laal la doon junju taxawaayi borom xam-xam bi ak wootekat bi ci yoonu yàlla. nim nekke ay warteefam ci mu leeral nit ñi li nga xam ne moo aju ci ni ñuy jaamoo yàlla loolu dañ ko war a xam waaw dafa am ñoo xamante ne borom bi subxanahu wa taala tawféexee na leen ñu xam waaye sant na leen ñu xamle waaye képp ku mën a doon ci ñun nag warteef la ci yow nga def yite xam nag xam sa mbiri diine xam yi xam ne moo aju ci. ni ngay jaamoo sa borom subxanahu wa taala li koy tax a baax sart ya nga xam ne moo ca nekk ponk ya ya nga xam ne moo koy yàq waxoon naa la ne yonent yi boroom xam-xam yi ñoo leen wuutu fal ulamaau warasatul anbiyaa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yónnee ki nga xam ne mooy Maas ibnu Jabal radiyallahu anhu mu jóge cim réew jëm cim réew waaye doon borom xam-xam bu war a jàngale war yor message bo muy joxe ak woote jëme ci diine mu rëddal ko fi muy jaar ne ko yaa ngi jëm ci nit ñoo xam ne ay intellectuel lañ waaw yaa ngi wax ak ñoo xam ne jàng nañ innaka taqdamu ala xawmin ahli kitaabin yaa ngi jëm ci nit ñoo xamante ne ñoom day ñooñ wàccee ci ñoom ay téere lañ boo demee na doon koo xam ne la njëkk ca la nga leen di woo mooy ñu jaamu yàlla te bañ koo bokkaale kon képp koo xamante ne nii day waxtaan wala daa bëgg dund diineem na xam ay priorité am ci wàllu jaamu yàlla mooy lan bokkaale mënta ànd ak leneen mënoo doon ab bokkaalekat ba noppi bëgg fee nekk di régler di di yeneen i problème ci diine ji te yow sa bokkaale gi réglé goo ko ba noppi faaw nag nga xam nag borom bi subxanahu wa taala wéetal ko kennal ko moom dong ca kennam ga gëm amam gi kooka nag doon koo xamante ne nii nag eh, ak jaamu yàllaam nag eh, dafa nekk sax mën na ma wax ne ci ak tàmbali moo tax mu ne ko innaka taqdamu xaw xawmin ahli kitaabin falyakun awala ma tad'uuhum ilayhi ibadatallah na doon la njëkk ce la nga leen di woo mooy jaamu yàlla mooy tawxiid wéetal yàlla waaw la nga di njëkk a loola na doon weetal yàlla bu ñangoo wéetal borom bi subxanahu wa taala na leen wax ne leen suñ borom farataal na ci ñoom julli ak ya nga xam ne moo ci aju buñ ko gëmee ba nangu ko na leen wax ne leen suñ borom farataal na ci ñoom asaka. azaka di alal joo xam ne dañ koy jële ci ñi am di koy jox ñi nga xam ne ñoo ñàkk ma ne joxoñ bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëddal na ko ki nga xam ne mooy maas ki nga xam ne bëgg naa dund diineem bëgg a jàng ak jaamu yàlla moom itam faaw mu jiital priorité yi nga xam ne moo war a jiitu ci yooyu moo war a jiitu ci yooyu nga xam ne day xam aw déggiin déggiinu jaamu yàlla ci lislaam day génnu jaamu yàlla ci lislaam mu xam ne fondement la fondement la fondement la euh, ay keno la yoo xamante ne day laytaayu moy nangoo doon ab jam ci boppam nangoo doon ab jaam summeeku mépp mbubum rëy sol mépp mbubum suufe ak nangu ak wommatu ñeel borom bi subhaanahu wa ndax borom xam-xam jàngale luxa dañuy wax ne aslul ubudiyati alxuduu wa dhull nee nañ e, cosaanul jaamu moom mooy rekk ak oyof akuk toroxlu akuk toroxlu nga xam ne baat la boo xamante ne ismul jaami lañ koy faral di wax li kulli ma yuhibbuhu llah wa yarda min al aqwaali wal afaali al zaahira wal baatina baat la boo xam ne baat bu sakkan la boo xam ne buñ waxee ak jaamu mooy lépp loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo bëgg muy loo xam ne da koo gërëm mu bëgg ca ci ay wax wala ci ay jëf yu feeñ wala yu nëbbu ci ay wax wala ay jëf moo xam jëf yu feeñ la moo xam jëf yu nëbbu bula mu dàq lépp loo xam ne mooy bokkaale mu dàq lépp loo xam ne mooy bokkaale bu boobaa eh, jaam bi léegi mi ngi defar digganteem ak boromam subxanahu wa taala ci doonub jaam waaye borom bi subxanahu wa taala doon ki nga xam ne mooy boromam bu ko dugalee ci bokkaale rek mi ngi boole ci yëf yi koo xam ne bokku ci mi ngi boole koo xam ne ci yëf yi bokku ci ndax al ibaada mooy jëfe ndigal yàlla bàyyi ay tereem bàyyi ay tereem njaxaf mi ci nekk nag mooy jël place bu yàlla am teg fa keneen wala leneen keneen mooy ak nit leneen mooy ay yëf-yëfaan waaw nga jël ko bëgg koo jox place boobu moo tax borom bi waxoon ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diini maa lam ya'dan bihi maanaam yellut jaaduwut ci kenn ci mbindeefi yàlla yi muy indi ci diine loo xamante ne yàlla indiwu ko ci waaw muy muy fent ak jaamu yàlla boppam muy traceel yoon woo xamante ne yoon wi lay jaamu yàlla moom moo ko kereyal boppam déedéet ku bëgg a jaamu da ngay laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la ñu yàlla laaj loo waaw borom subhaanahu wa taala nee na ku bëgg ma gërëm la ku bëgg li ngay def ma kontaan ci demal laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga bëgg a def nuñ ko doon defee demal laaj mooy demal xool ni mu ko doon defee demal xool ni mu ko doon defee bi tisbaar nekkee ñeenti rakka fi mu ne boo bëggoon yàlla kontaan bu doon ci logique gu doomu aadama nga ne ko yii man moom sama xarit nga moo tax tey du ma julli ñeenti rakka waaye damay julli huit ndax dama bëgg nga gën a kontaan bu doon doomu aadama la de bu la nee baleel ma nga far bale fobeere nettoyé fomp gën a xóotal gën a nàngam day xam ne da ngaa xër mën naa sax mu ne ah yow jàmbaar ga danaa la yokkal waaye déet borom bi danaa la yow loo xër xër xër xër xër li may li may bégloo allahu akbar li may bégloo mooy li ngay def roy ko ci roy ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom laa moom laa la déglu waxuma la nag moom ngay jaamu waxuma la moom ngay jaamu moo tax yonent saa sallam tàqale woon digganteem ma borom bi ci wane ne du nawle bi yàlla du nawle bi yàlla du ma ndendandoom du ma associé ci nguuram gi du ma associé ci nguuram gi daf maa sant ma ñëw jot li leen ma jot li leen yàlla ne ko gis nga yow mii may jot li loo bis boo bokkaalee man ak yow danañ am problème waaw bis boo ma wutalee ndend rek sa jëf yëpp yàqu waaw bis boo ma wutalee wujj sa jëf yëpp yàqu kon asemaak keneen ku dul moom bokkaale mbokk yi baaxut te ñun léeg-léeg ñu koy def te duñ ko yëg léeg-léeg ñuy bokkaale suñu làmmiñ taxul ma ne nit bokkaale kat nga wala génn nga ci diine waaye léeg-léeg nit di wax waxi bokkaale la moom léeg-léeg di kàddu goo xam ne moom waxi bokkaale la xol bi nag moom yàllaa xam la ca nekk li tax waxi bokkaale jaram moytu bu nit ki baree lu muy wax waxi bokkaale ci làmmiñam bu yàggee wax ji day def jeexital ci xolam am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diini maa lam ya'zan ma ne falaa yaxiqu li ahadin min al maxluqina an yashraa linnaasi sharaih yellut warut ci kenn ci mbindeef yàlla yi muy rëddal nit ñi yoon wu ñu jaamoo yàlla u bokkut ak yoon wi yàlla rëdd jaarloo ci yonent alayhi salaatu wasalaam loolu du boroom xam-xam buñ ko may ah diw am xam-xam de tax rek mu jàpp ne moom war naa mën a fent ay yëf du pouvoir du du du yooyu yëpp du ci benn moo tax xeeti jaamu yàlla yooyu boo ci ñëwee ci xeeti jaamu da gis ne ay xeetam yu baree bari la ay xeetam yu bare bari la bokk na ca loola ñaan ñaan gi may faral di waxtaane xam nga ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi aaya ji wax ne addu'a huwal ibada mel ne ku naan ñaan ci boppam mooy ak jaamu yu mooy ak jaamu ñaan ci boppam mooy ak jaamu kon na nga fexe ba sax ñaan bul ci bokkaale am na sew-sew tawasul lu borom xam-xam yi di werante la mën naa wuute ak bokkaale ci barkeeb loolu mooy tawasul ci barkeeb waaw ci barkeeb nangam ci barkeeb diw muy tawasul ci nit ci barkeeb jëf ju baax joo jëfoon muy tawasul ci say jëf loolu borom xam-xam yaa ngi koy wax ba démb du problème waaye bokkaale ga mooy jàpp ne rend gi mooy tax mu nangu jàpp ne rend mooy tax mu nangu wala wala wala wala bu ma ci duggee ci détail yooyu mën naa gudd lool xam naa danañ ci ñëw ci dimanche yi genn dimanche incha allah wa isa saalaka ibadi anni fa inni xarib xaribun ujibu daawata daa'i isa daani kon nañ ko ñaan ci jaamu yàlla la bokk beneen bi ci topp mooy ragal borom bi subhaanahu wa taala al xawf jaam bi day doon koo xamante ne day ragal yàlla dañ koy ragal kenn du ko ñeme dañ koy bëgg nag xam nga foofu dafa am sew-sew moo tax nit ki dañ koy former ci mu bëgg yàlla bëgg ko lool ba borom bi doon wéttalam waaw ñi bëgg yàlla dëgg bu ñuy faatu dañuy kontaan ndax dañuy yëg ne dañuy dajeeg seen soppe bañ gënoon a bëgg ki leen gënal ñëpp ñi bëggut yàlla seenu faatu day metti seenu faatu day metti waaye ragal ko nag mooy gëm ne borom bi subxanahu wa taala li mu wax dana ko def te daf laa tobbil aw sas woo xamante ne danga koo war a bay moo tax mu ne waxaafuuni waxaafuuni in kuntum muminin waay waay te ngeen ragal ma nag bu fekkente ne gëm ngeen bu fekkee ma ragal na ngeen ma ragal bu boobaa na ngeen ma ragal na ngeen ma bàyyi xel waxaafuuni in kuntum muminin waaye yëmut ci loolu ci jaamu gi mooy yaakaar yaakaar yàlla yaakaar yàlla léeg-léeg wax ko bu meree ko yaakaar yàlla la yaakaar ma ne dëgg la de waaw koo yaakaar de yàlla la yaakaar xam naa danaa ci dellu si ci li ci war a topp incha allahu taala bu ñu yàlla may ñu dund ba suba yal nañu yàlla may ñu dund ba suba ak te weesu ko ñu jaajëfal leen bu baax jéggalu leen itam ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan ko mu defal ñu kenn lu jàmm.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 wa rahmatullahi taala wa barakaatu